yaa ngi romb gars yi de fooy jëm. non ma bëgg a jël ay image rek. loolu nga. voilà yëgal yëgal yëgal yëgal ci kaw. non non non non

在哪里？两眼一瞪。 Boy, lan moo dugg sa biir Hello. Allez-y, allez-y, allez-y xaaree yaakaar naa ni dëkk bi ñu woote patriotisme bi bëri na trop mais tey bu ñu woote pourquoi pas ñu déglu tey itam dañ ko war yaatal incha allah. en tout cas ñu ngi aussi. cër la bu war a def. mais ñu gërëm aussi waa Sénégal le directeur général euh, Pape Demba Bitèye moom aussi dafa participer ci bés bi. salaam ñëw ne comme ni président def lépp ñëpp la. kon bu baaxee comme tey association CDD jóg yàgg def lu nii ci dëkk te ci woon kenn kon tey bu de la république dafa def benn lancement woote kon naka lañ mën a def pour seetal dëkk bi ndax dëkk mënul pour mu am wër yaram kaw maanaam mu am cet naa ne action citoyenne lii ngeen di def lu rafet la di gërëm monsieur le maire ci li mu taxaw parce que lii fi nga moo ko war nit na bu amee cër xam ko def ko dañ ko war a gërëm

mooy sa xeex guddi mooy sa xeex bëccëg il est un exemple parmi les jeunes te nak li ca kanam allah day xam jeriñ lu way def ak àdduna sa bokk sa bokk kon nak ñu lay gëreum di la sant sa taxaway rafet na monsieur le maire sa doma doomango ak ñi ñëpp nak leen ci gën na jax ndax li nga def am nañu ko warona a def te defuñ ko tey boo ko defee yooyu ci biir vraiment tey remerciement di def ci ci la ñaanal yàlla en tout cas merci lo rek lañ ci bëggoon a monsieur le maire. nuyu ñëpp di am mbégte ci teewaay bi mais di am mbégte aussi ci projet bi daal ñu accompagner ci mu ngi tàmbalee ci commune bi ci département bi ci région mu egg national en tant que maire en tant que la CDD xam tey njëkk a di ko ABEX aménagé et et les canaux chaque année dañuy ànd ak moom rek yàlla def lu war maanaam ci ABEX moom ko di demal te yàlla doxal ma nekk maire mu leen wane ginnaaw warawuma sérieux ndax fu ñu taxaw en seen nag seen kanam seen ginnaaw ànd ak ñoom bokk liggéey dëkk dëkk wàll ko léegi dëkk rek ñu ko liggéey dëkk ñu ko liggéey kenn ñëw liggéey kon nag ñëpp leen bokk booloo taxaw taxaw léegi coono réeru borom waaye liggéey yàlla fay tey ñu waroon taxaw taxaw ñu ne kon baa ngi nii ñu waroon ñëw boo wàññee ñu génn nga dem ci biir jigéen ñu bàyyi seen kon kon kon Ousmane Diop war na ci ñëpp ñu génn tey bale na ñëpp génn ànd ak ñun jàppale parce que ñoom la war kenn bu nekk yaa war a bale amul loolu ñu génn nañ génn jàppale waaw góor ñi dafa jàmbaar waaw mu sax sabat ngay sax baax a baax taxawaay wala defee si taxawaay gis nañ nekk développement boo xam ne bàyyi woo xale boo doxal booy dem nëbb bañ a woo Ousmane boo doxal booy dem nëbb bañ a woo Nar Sall parce que dafa def la comme toi mais booy dem yow te te large ñëpp lay woo ñëpp la ñëw ànd ak yow parce que dama ñoo bokk nekk gouvernance devant le gouverneur devant le comité de l'urgence et de DPG kon nous remercions tout le monde donc encore une fois la CDD merci encore une fois merci mètres waaye dëkk bi set setal ko ak yi nga xamante ne nii ñun moom chaque année président de la république avant mi falu daf ñu fekk ndax jàmm ngeen ba léegi chaque année événement bi bu jub see avant mi taw ñun ñoo ñëw nettoyé di euh, tiré canal yi indi fi yi ak lépp waaw loolu moom saa su ne gars yi ko noonu daal tey daal loolu moo bi ñëpp jënd nag nekk ci liggéey daal ñu ngi rafetlu nag bi seen détermination ak euh, seen taxawaay donte ñëpp génnuñu parce que ñu bëri tamit am na ñoo xam ne amaguñu esprit boo xamante ne a génn nekk ne nii am nañ coopération génn ñu jàpp liggéey bi kon wax dëgg yàlla ñu a di wax jeunesse bi tamit ne dañoo am esprit boobu ñëpp bi ñu déggee ne président déplacement bi rek. limit tey ñëpp waroon na ñor askan bi yëpp ñëpp waroon nañoo mën a génn tey képp kuy jeune taxaw liggéey sa gox bu bëggee xaar état ci lépp soot esprit bi nga xamante ne nii Rwandais yi dañ ko am waa Rwanda ñun esprit boobu ñun sénégalais war nañ ko a am ñi dafa war a am ah. chaque weer dafa war a am chaque weer waaw chaque weer dafa war a am waaw mooy loolu quoi CDD moom la mës a am rek waaw taxawaay bi CDD mës a am chaque année dinañ jéem a fexe def benn outan douleur boo xamante ne def du consultation xam nga jéem a xool nit wér gi yaram seen tool may leen ay garab armée lii tamit gis nañ ko cimetière jàmm gën chaque année dañuy taxaw volontaire bàyyi te setal bi nga xamante ne nii clean day lañ koy tuddee boo xamante chaque année dañ koy def jàmm ngeen moom chaque jour CDD ñu ci action nawet bi bu gis nga suñu machine pompe yi nga xam ne day inondé mbedd yi nga xam ne day inondé a viré ndox mi jëm ko yóbbu ci yenn canal yi mu mën a dem CDD moom chaque yi nga xamante ni moom la dëkk bi soxla waaye di ko xam ne la ñun loolu daal ne yi nekk dañ taxaw jàpp gaay jàppale gaay mooy moo xam ñaari commune yi nga xamante ne moom ñoo sopp jàmm muy taw njëkk taw jàmm lañ si am baax dëgg la nag ñu ngi mais nañ def liñ mën parce que la ñoo ko war a def kon ñu amee collectif bu nekk jàmm ngeen di def lii ñoom a taxaw yi di jàppale ci lépp da ci am solo daal. boo waa jeunes yi li ma leen di mooy nañu am esprit bu rafet ndax jàmm ngeen bu ñu waxee rek ñu ne jeunes yi rek la ñuy concentré wu làmb tey li may lancé mooy ñu ñuy woowee ay mbër ñu dëkk jàmm ngeen. ñoom esprit ñu war a am ñu jàpp ne ñoom sax du lañ leen war di jàppale wala di leen dimbali bu ci am combat bu gën a maa ngi woo Moussa maa ngi woo Noreyni maa ngi woo c'est-à-dire mais ñoom pour lan bu ñu wootee lu mel nii ñoom du ñu génn ñoom ñi ñuy wooyee ay mbër di bëre du ñu génn di ñëw di jàpp bu ñuy tiire canal yi ñëw bu ñuy seqatal ñuy génn bu ñuy bay armée li ñuy génn bu ndox mi taayee ñuy génn di dimbali askan wi mais yow bu boo amee combat da ngay jéem taxaw ne gars yi nañ la may ay sàngam mais tey yow askan bi bu ñu la fi nekkalee da nga war a nekkal askan bi loolu mooy dëgg tey lancement bi bi ko président defee képp koo xamante ne mbër nga mu leer na leer da am ay fan lay topp wala ni tey da nga waroon génn ñëw taxaw dugg ci kanaan yi nettoyé ko vidé ko bale mbedd yi mu set te xam ne ci dëgg bi nga dëkk loolu mooy esprit boo xamante ne esprit bu rafet man loolu rek laay lancé jeunes yi bu ñu waxee ñu ne jàmm gan ay lamb rek la ñu concentré wu mais li ñuy concentré wu ci lamb yi et puis Nolanya lañ leen di lancé quoi waaye ñu ngi jégalu nag bu baax ci kàddu yi ji wuyu pour laal xoolu kenn mais dëgg la boo xam ne dañ koy partagé rek ci nekk jot wasalaam ñu ngi jégalu ñëpp. waaw di rafetlu bu baax idée président Bassirou Diomaye Faye waaw di ñaanal yàlla tamit yéen bii ko yàlla ko je suis fier d'être pour président Ousmane Sonko waaw lii nag ñuy def nii nii nii dafa fekk ñu yàgg koo def mu tombeek bés gi mu ko woote ñun dimanche lañ ko doon def comme suba la ñu programmé woon mais moom comme dem na ba programmé tey jii moo tax ñu indiwaat suñu ko fekk ci ko mais comme lii nii nooree nii di def nii lu yàgg la te bëri na ñoo xamante ni ñu ko waroon a mën a def si jàmm gën jeg taaw si waawoon jàmm gën te defuñu ko te nooree ni lii mooy septembre mu koy man nag heure bu ma ci woowee damay ñëw wuyu si ko si te tuuma ci dara joxuma ci fukki tamit heure bu amee damay ñëw teewee bii mooy quatrième fois ma koy teye mais yàgg naa gis ñu koy def ça fait trois ans may gis ñu koy def mais heure bu ma xëyee damay dama leen ciy bàyyi di ko rafetlu tamit mais bi ma demee ba xam ni tëgg la dama leen cee fekk ren moo ciy sama quatre ans mais ñoom ñu ngi seen sept ans di rafetlu bu baax nag idée bi. nga gën a conseil waa jeunes yi nga xamante ni ñu nekk jàmm gën. waaw jeunes yi nekk jàmm gën dama leen di conseil pour bu lu mel nii amatee bu nu toog di xaar ñu leen ciy woo. woo bi lenn la muy premier appel bi dinañ ko wax si jumaa ji ajuma heure bu nu jullee ajuma dinañ ko fa wax te képp koo xamante ni ko war a yëg ngay lu mel ni place publique yi dinañ ko fa wax ku ko ci dégg jarul ngay tànqamlu bu amatee ñëwal nga wuyu sunu nga jàppale nu ñu defar sunu réew ndax réew mi sunu sunu gox bii nii tey képp koo xamante ni am na fi bés da ngay ñaan yàlla ñu teewal la muy mbër bi di fecckat bi di basketteur beeg ñëpp surtout mbër yi nag dañuy dañuy mobiliser ñu bëri man damay sonn si seeni combat ku si mel ni man ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen kon lu mel nii bu amee ñoom waruñu di xaar ku leen di woo ay jeune su suñuy morom la ñu suñuy rakk lanu rafet na ñëw di jàpp yu mel nii mbëru jàmm gën gëstaaw yëpp nag maa ngi leen di woow lu mel nii bu amatee nañ ñëw jàpp si nañ ñëw jàpp si bu baax a baax a baax ndax ñun jàmm gën la ñuy teewal kon lépp loo xamante ni jàmm gën lay représenté rek yow doomu jàmm gën ñëwal nga dugal ci sa loxo ñun loolu la ñuy wax jàmm gën gëstaaw nag ñun suñu fierté la fii la ñu am waaw jërëjëf jërëjëf